salaamaaleykum mbokk yi nga xam te ne yéen saxoo di ñu topp ci si suñu émission suñu yaakaar amaat ñu mbégte teewaat fii seen kanam ci yeneen jukki leen gërëm di leen sant di leen fàttali rek ni mën ngeen jokkoo ak ñun su leen neexee ci numéro yi nga xam moom lañ bind numéro bi am na whatsapp waaye tamit mun ngeen wecce ak ngeen xalaat. gannaaw bu ngeen bindee seeni xalaat ci suufu njàngale yi nga xam te ne ñu ngi koy def suufu jukki yi nga xam ne ñu ngi koy def kon ñu leen gërëm di leen sant bu baax si sunu jukki bu mujj gisoon nañu ni nga xam te ne noonu la yeesu bëre woon yërmande jëmale ko ci nit ñi nga xam ne ñoo koy ton topp ak di ko déglu waaw ah, gis nañ tamit ñi nga xam te ne noonu la doon faje nit ñi nga xamante ni tamit ñoo ñëwoon ci moom yor ay jàngoro. tey dinañu xool ci Matthieu saar fukk ak juróom benn ah, kéemaan bu jógee asamaan amoon na ay pharisiens ak i sadducéens yu ñëw ci yeesu ñu fexe ko fiir ba laaj ko wonnu kéemaan guy firndeel sak yonent te mu jóge ci asamaan noonu yéesu ne leen ngoon gi dangeen naan du taw suba ndax asamaan si dafa xonq te suba ngeen naan tey tey daal dina taw ndax asamaan si dafa xonq te xiin kon man mën ngeen a ràññee melow asamaan waaye mënu leen a ràññee finde jamono ji ñu toll yeesu laaj firnde yéen ñi ci jamono yu bon yi yéen ñi fecc seen kóllëre ak yàlla waaye du ngeen jot génn firnde guddul firndek yunus bi yéesu waxee loolu mu jege ci ñoom dem gannaaw loolu taalibe yi jëlaa jàllaat dex gi fekk fàtte nañu yóbbaale mburu noonu yeesu ne leen wottu leen te moytu lawiru pharisien ya ak sadducéen ya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 ca saraxalekat yu mag ya ak ca xutbakat ya ñu rey ko mu dekki sa ñetteelu fan ba bi mu waxee ba noppi Pierre woo wee ko ci peg bëgg ko yedd ne ko yàlla tere borom bi loolu du la dal waaye Yeesu waññiku daldi ne Pierre salama seytaane bu ma xatal yëf nit ngay fonk waaye du yëfi yàlla gannaaw loolu Yeesu ne taalibe ya ku bëgg aw ci samay tànk na bàyyi boppam te gàddu bant bi ñu ko war a daaj door a topp ci man ndaxte koo xam ne bëgg ngaa rawale sa bakkan di nga ko ñàkk waaye ku ñàkk sa bakkan ngir man jotaat ko te it moom àddina sépp lu muy jariñ nit bu ñàkkee bakkanam te it lu mu war a wàcc lu mu war a wecce bakkanam ndaxte doomu nit ki dina ñëw ci ndamul baayam ànd ak ay malaakaam bés booba dina dellu dina delloo ku nekk ay jëfam ci dëgg maa ngi leen koy wax am na ñi fi taxaw ñoo xam ne duñu dee te gisuñu doomu nit ki ñëw ci nguuram. jërëjëf donc li ñu mën a tënk rek ci eh, saar fukk ak juróom-benn yi moo di ni yéesu mi ngi moytuloo taalibe yi njàngaleb pharisien yi ak saducéen yi comme ni ñu koy waxee rek ci ay léebu leen daan wax bu daan wax naan léwir moytu leen léwir nekkul woon léwir bi ñuy def ci mburu la daan wax. waaw gis nañ tamit ni yeesu doon laajte taalibe yi kan la nit ñi di wax naan moom la ñu neen ko ab yonant la ñu neen yunus la wala kenn ci yonent yi ku dellu si moom mu laaj taalibe Pierre moom tontu ni ko yaa di almasi bi yaa di doomu yàlla ci yeesu xamal ko ni ko du nit moo la ko xamal waaye xelum yàlla mi moo la xamal loolu gis nañ tamit ni yéesu waxee taalibe yi ni ku bëgg topp ci moom faw nga gàddu bant bi ñu la nar a daaje maanaam coono yi nga nar a daj ndaxte topp yéesu gëm ko dund dund bi nga xam te ne moom la yeesu bëgg moom la yàlla bëgg du nekk dund boo xam te ni nit ñi dinañ la may jàmm ngir nga dund ko kon yéesu mi ngi doon artu taalibe yi ak ñi ko nar a gëm coono yi nga xam te ni ñoom ñoo leen nara fekk ci topp yéesu kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daje ay bis yi di ñëw di leen fàtte rek ni mën ngeen jokkoo ak ñun su ngeen ko bëggee ci numéro yi nga xam ne moom ngeen di gis waaye it mën ngeen waxtaan ak ñun bind seeni xalaat wala seeni laaj ci suufu njàngale yi nga xam te ni ñu ngi koy def su noonu dinañ mën a tontu ak dinañ mën a tontu weccante ak yéen ay xalaat di leen jox dox daje bay bés yi di ñëw ci yeneen jukki di ñaan yàlla moom mi borom jàmm jàmmul ñëpp barkeel ñëpp jërë ngeen jëf ba beneen yoon.